waaw euh, ndogu bi bi mooy trois ans troisième édition ma koy organiser euh, li ma ci gën a neex nag mooy mooy bis bi muy tombeel muy bisu maam Cheikh Ibrahima Fall muy ñaar fukki fanu koor gi waaye ren da cee raw ndax ku gàtt dégg-dégg dégg nga ni euh, bisub dibéer ñaar fan ci weeru koor bi bisub dibeer la mbir ma leer ci la maam Cheikh Fall gisee woon ak sëñ Touba tey mu tombeek ñaar fukki fan. ci weeru koor ba noppi nekk dibéer di dimanche kon mbégte mi ren la gën a yokk wax dëgg fa yàlla mbégte laa ci am ci ah, ko weeru koor ñu defar ay ñam defar ay ndogu ah, fas yéene koo jox jaam ñi ci ñaar fukki fan yi ci weeru koor ah, bi mooy troisième année bi nag ndax jullit moom ak koo xamante ni wax dëgg fa yàlla am na loo xam ne yàlla may na la as tuut da koy bokk ak jaam ñi da nga koy bokk ak doomu aadama yi. donte ne bi ñu yàlla defee ay jaam ba noppi dañ koy bokk ak jaam yi ah, looloo tax rek ñu di ko def ndax a ah, ci li nga xamante ni jot nañ koo dégg ñu ne ki nga xamante ni tey woor na ba ngoon jot jox nit benn tàndarma rek mu ndogu loolu barke gi ci nekk kenn xamul nu mu toll waxantuma laak nga dundal ay doomu aadama jox leen ay ndogu ah wax dëgg yàlla kontaan nañ ci am ci mbégte aussi di ñaan yàlla na yàlla xéwali ci am yëpp yàlla na ko yàlla tasaare ci àdduna bi tasaare ko ci Sénégal ñëpp jot ci yàlla def ko lépp ay xéwal ñu tasaare ko ci àdduna bi bi jaay Seydina ma sallallahu alayhi waaw xam nga loolu mbégte la ndax nit ki ñaan nga yàlla boo xewlee sa mbokk artiste yëpp ñëw teew te loolu wax dëgg fa yàlla mbégte mënu koo weesu wax dëgg fa yàlla euh, kontaan naa bu baax a baax a baax ci loolu di wax ni artistes yi moom lii lañu am ñu bokk nday bokk baay ndax du man kase maa ko fi def démb Jean Michel moo xewle woon suba keneen mooy xewle ginnaaw suba keneen mooy xewle ndax artistes yi koy def jamono ji bari na démb tamit euh, Ngone Mbaye ko doon def mooy bi joué sama wujj tubaab la démb moo ko doon def fële lycée Limamou Laye Jean Michel doon ko def parcel tey man ma def ko fii fan semaine bee passé Arona Mbodj waa Rabat Euh, kon mbégte la daal mbégte la wane na ne artistes yi ñu ngi wane bon exemple donte ni nag weeru koor bu jotee ñu ngi dimbal ñu ngi nekk ci tele bi di sonal gars yi di leen reetaan di def naka sudul noonu di jéggalu nag askan wi parce que des fois ñu déraper des fois ñu déraper mënut a ñàkk euh, xëy na nit la dongulan te nit day juum nit day juum kon des fois ñu juum mais nag ñu ngi jéggalu ñëpp. nañ ñu baal àq bu baax a baax a baax ci lu ñu def te yëguñu ko ci lu ñu lu ñu def mu naqari doomu aadama ñu ngi lay baalu àq di la wax ni nga baal ñu àq euh, baal nan la yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekk ko ay at yu bare bari bari